ngoog eh, li ci yéene kaay yegg nañ ci fas yéene dalal Seydina Omar Ba ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay Abdoulaye. naka suba si. sant alhamdulilah. Walf Quotidien lam ñu xëyee. Ah, dafa tey dellu si waat ci dépôt euh, euh, ba lettre boo xam ne bëgg Mari Sagna doon euh, ci jublu rek mooy xamal leen ne ko ñu bàyyi ñi nga xam ay détenus politique la ñu rawatina kii di Ousmane Sonko mi jàpp ne moom mooy chef de l'opposition yéene kaay yi Mari Sagna li ko xaw mobiliser ngir rek mën koo saytu yéen kaay gi moo xëy fësal lu ni mel leen tamit loo xam yéen gi mën ko xëy te mooy avocat état bi nga xam dañoo génn fas yéene euh, euh, yóbbaat ci yoon kii di la ñuy sàkk mooy ñu teg la ñu teg ko ay dàmpaay ndax nguur gi jota yàq ci manifeste yi fi amoon dafa dégg dayoo te jot na Ousmane Sonko fay loolu noonu la ko yéen kaay gii di Walf Quotidien xëy fësal ab turbine eh, lam ñu dikkee waaw yéen di la turbine dafa xëyee dellu siwaat ci Macky Sall mi nga xam ne jamono ji ma ngay teg gët euh, am amu ala àll kii di Ousmane avocat am nee euh, mbir mi daanaka duñu ko bàyyi mu jàll donte sax jël nañ ko daal di koy tëj kaso waaye dañu bëgg daal ñu teg ko ay daana yoo xam ne nii lépp daal loo xam ne ay yàqu-yàqu la mu am ci biir réew moom si jëm boppam mu daal di koy fay yéen kaay gi critique lam ñu dégtal Abdoulaye yéen kaay gi di critique dafa xëyee de l'histoire ci président Macky Sall ne ba fii euh, dafa tëwe euh, dafa tëwe kon fësal turu candidat bi nga xam mooy fas yéene teewal coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection 2024 yi ñu dëgmal yéen gi ne donte le kenn ku ne taxaw na waaye président Macky Sall fu mu ab soit waaw risque jamono ji noonu la ko yéen kaay gii di critique xëy fas yéene kaay bi di la mandat waaw bu dee yéen kaay gii di la mandat dafa jàmm Abdoulaye Daouda Diallo ba mooy kat moom la tànn ndax donte la ñu doon tudd Ba waaye Abdoulaye Daouda Diallo gis na ne njabootu présidentiel bi moom la ñu gën a jox bopp te boole euh, mboolem aussi borom alal yi nga xam ñu nekk ci biir euh, APR moom Abdoulaye Daouda la jox bopp gars jàpp na bu ñu deful ndànk moom mi di Abdoulaye Daouda Diallo dana féete kaw euh, kii di Amadou Ba a a kaay xëy na ko fësal Abdoulaye mhm. te mooy sabotage gi am ci réseau d'assainissement bi fële ci diwaanu Touba yéen a kaay gi xëy samp laaj moo bëgg a magal gi noonu la ko yéen gi di la mandat xëy fësal yéen di source a xëy dellusiwaat ci lu jëm ci nga xam ne ay dissident la ñu mu soxal Euh, parti politique yi lée yéene kaay gi nag article 57 bu yàgg nee koo xam yaa ngi euh, euh, ko xam ne meeku nañ ci biir coalition présidentielle coalition présidentielle yéene a ne gannaaw am na si nag ay alliés yoo xam jamono ji wane seen bopp noonu la ko yéene gi Sud Quotidien

Euh, ñoom taskatu xibaar nag war a dajale ci diirub ñetti fa ñetti weer fas yéene càmbar mboolem jafe-jafe nga xam ni euh, média bi koy dund jéem a xool saafara si mën a indi noonu la ko yéen a kaay gii di laas xëy fes yéen a kaay bi di moom ci loolu xëy dellu si l' observateur Abdoulaye dafa xëyee dellusiwaat si ñaari alkat yi nga xam ne dañ leen teg loxo. Mm-hmm. ñoom nag ñu ngi bokk ci GIGN dañ leen jàppee ci faux billet. Mm-hmm. toll si ñaari milliards. Euh, démb nag da leen juge bi doon déglu waaye kenn ku nekk si ñoom jeexawul preuve bi wane ne ñoom lañ leen takkee lañ tubal seen loxo euh, da ci set. Mm-hmm. Euh, mu nekk nag mbir moo xam ne nii moom la l' observateur xëyee tey Abdoulaye. yéen a kaa bi xëyee dellusiwaat jafe-jafe yi nga xam ne Air Sénégal moo koy dund jamono ji Euh, yéen a kaay gi ne neexul ba neexul donte la sax euh, bañ ko taxaw léegi yàggul waaye euh, Air Sénégal international dafa am ay jafe-jafe kon ngir tegu ci kaw yoon bi ñooñu mm-hmm. la ko yéen a kaay gi di l'évidence xëy fesal Abdoulaye lu soleil lam ñu dégtal caalaan la ñu xamleel tey caalaan ba dëkk la boo xam ne nekk ci île du Saloum nekk fu la ci doon Fatick di dëkk boo xam ne dëkk bu xaw yéeme la ci wàllu xar gu foog yeneen yu ni Euh, Thiala nag ku ko bëgg a xam yëral yéen a kaay gii di la Soleil. yéen a bi di stade lam ñu. Sénégal Rwanda euh, match retour bi euh, dañ ko war a joué fii ci Sénégal waaye war Rwanda dañoo lànk ne match bi dañ ko joué

<laughs> yéen kaay gi loolu la xëy fësal nee na ci fukki at am na si ñeenti victoire am si ñeenti défaite yéen kaay gi moo xëy fësal lu ni mel nee Bombardier moo ko déjati ci tronam drone euh, euh, ci euh, raay bi Eumeu Sène aussi ñëw daanaka exilé ko Boy Niang ñëw daal di koy maanaam daal doon koy daan mu doon loo xam yéen kaay gi xëy fësal leen itamit loo xam yéen kaay gi xëy na ko fësal te mooy combat gi nga xam ne ni moom la ñëpp di xaar mu war a dox ci diggante Ama Baldé ak Gris Bordeaux yéene gi ne combat boobule boo mooy daañu ko randal ba nekk janvier ci atum 2024 ndax gars yi ñu ci waxtaan yu sore sore noonu la ko yéene kaay giir suñu lamb xëy fesal Abdoulaye ngoog Seydina Omar Ba fes na lool ci xëtu yéene yi